so dañuy indi personne boo xamante euh, ku ñëpp ràññee la kii nag mooy bay Ali Samb dëkk ba Touba Mbacké di ñaankatu yàlla di ñaankat boo xamante lu muy ñaan bëri na lu muy faj bëri na mais dañ koy bàyyi mu nuyoo pare ñu wax si wax si lu wàllu lu muy ñaan wax si lu wàllu lu muy liggéey dañ koy bàyyi mu nuyoo pare ñu doog a waxtaan si yaatal si affaire yi Baye Ali maa ngi lay ziar. waaw maa ngi lay fay maa ngi i di ñaanal jàmm di la siyaar euh, di leen am mbégte ci dalal bi ngeen ma dalal ñu war a war a euh, bégal askan wi waaye ñu war a taxaw ci li nga xamne moy mo jaxal askan wi mo mo ñu taxaw juk dimbele ñi nga xamne dañu am for rob ak ñi nga xamne dañu dañuy yaakaar muy tas ak ñi nga xamne duñu dañuy nekk ci barab yi euh, non yi di len sonal ak am ñi nga xamne dañu ni liggey di len yak ak jigen ñi nga jigen ju rafet lol du mën am jëkkër leg bu goor bo xamne day di sey leg leg bu goor bari alal lol boo demee këram do fekkeen do am jabar yooyu yëpp dañ koy dindi. bay ala sambu ku na xamne ne yow ñaankatu yalla nga bu nga xamne da nga laxatu won digënde Touba ak Mbacké yaa ngi fa ngay nek dantol tey nak da nga ñëw Dakar ñu profito ñu ne foog ñu la la pour askanu Dakar xam la pour askanu réew mi xam la te gis nañu ndaw ñi forum rap da leen sonal lool ba yaalla sam da yëngu ci walu forum rap, waaw rap euh allahuma fi bi ci biccu tak bi ci allahuma fi ci bi ci junne allahuma junne waaw damay yëngu ci walu junne bu dé da nga bëgg dégg man sama xam xam junne moo may jàppale man junne moo may wax liy nekk ci nit ki moo tax damay dégg nag am ñu naan junne mais xamuñu junne dëgg dégg naa benn waay muy wax naan junne day laaj jëmi doomu aadama xanaa junne bam boobu yéefar wala moom ba mu xam mais junne yi ñu xam ci cosaan ci sun senegal gii junne li muy laaj mooy euh, am xar wala ay nag wala ay gileem ci ko am alal mais xam ki mënut jënd ganaar boo laaj laajee ñeenti gileem du la ko jox du dëgg gileem bu ne la day laaj doomu euh, buñ ne la euh, junne day laaj doomu aadama ku loolu dafa lay nax xam-xam bi dëkk ci réew mi nag ku ko xeebut man ngaa jëriñu mais bu dee da ngaa bëgg a moo xam ngay footballeur moo xam ngay politicien moo xam nga def sëriñ bëgg mucc rek mën nañu am si xam-xamu réew mi damay liggéey ànd ci gunney jullit yi ñu ne ma kii lii moo nekk ci moom. tey ñëw si yow. na dafa am faru tey nooy saafara faru rab. waaw euh, dama koy seet su ma ko seetee. biicu allahuma fi takk bi ci junne mu ne ma kii lii ak lii moom la moom la rawaanam bëgg rawaanam nii la mel dafa am ñoo xam ne junne moo leen di napp am na jigéen ñoo xam ne junne leen di napp am na góor ñoo xam ne junne leen di bëgg am na jigéen ñoo xam ne ku leen takk faatu ndax dañu am for rob for rab boobu laay naxtaan mu bàyyi for rob boobu la ñuy seet li mu bëgg ñu def ko sarax for rob bi baax bu ko defee nag bu dee koo xam ne kii am na kattan da koy lam koy yàqal moo ëpp fuuf lim ciy ñàkk da koy jaral mu génne xaalis bu ay sarax buñ ko ko waxee mu def ko sarax nag bi ma ci xam man bu dee ko am doole nun duñu duñu sacrifice nun li ñuy def mooy wàllu ay ray ay sacrifice non nun li ñuy def mooy bu dee dañ laa laaj giléem sa junne yi ne na génne giléem day dëppoog lislaam dañ koy denc ba période màggal ñëw wala période yeneen yi jot mbooloo yu daje te amuñu lu ñuy jëfandikoo soxla ñu dawal ñu jox leen ko xam nga loolo bax na wala bu dee xar noonu mais di def yenn sacrifice du du tour ay nii nii nii nii duñ ko defee def ay sarax dañ koy pour ay ñam yoo xam ne dañ koy génne jox ko doomu aadama yi pour kooku junneem ji ko topp bu dee junne ju jigéen la wala euh, junne bu euh, kii dafa am faru faru euh, junne joo xam ne ju jigéen moo ko topp muy xale bu jigéen boo xale bu góor boo xam ne junne moo ko topp jabaram di di seey ak moom di seey ak moom sax ba di ak dindi bu ne maanaam boo tëddee ak moom sax dangay ngay toog moom ñu tëgg la yar tëgg la am na am na jigéen ñoo xam ne boo tëddee ak ñoom da ngay tëdd bu rek ñi bàcc la bi yar nga nga xool doo gis dara am na jigéen ñoo xam ne bi ci gën a bon da koy takk ko ko takk faatu ba muy ñetti jëkkër quatrième ba bu amee gàllaaj dana ci mucc mais boo mu gàllaaj day faatu loolu mooy mooy am na ñu bari dañuy dañuy waxtaanee wàllu for rab ak junne te dëgg-dëgg gëstuwuñu waaw mooy wàllum junne fa mu jëm ak fi xale yi tey yi jëm bokkul nun nag suñ cosaan bi ñuy xale li ñu xam-xamoon nañ ko waaye dañ ko doon nëbbu ba nekk mag door ko mën a génne mais xele bu ndaw buy wax ne junne day soxla jëmmu doomu aadama xanaa junne ba xam waaye nun junne yi ñu xam dañuy am yërmande dañuy bëgg nit ku am yërmande junne yi attention de junne yi toujours dañuy jaar nii di dem junne yi dañuy yëg ci oto yi nekk xele bu jigéen junne yi dañuy yëg ci oto yi nekk màggat gu màggat yor ay sagar moo dag moo dajeeg benn paa bu sagar na ko jàppale bu ko xeeb paa bi ma fanaanoo ay sagar la yor ma fanaanoo ko bu digg xaaj mu ne ma saway yow yeewu nga de waaye jógal nag waaye bul tiit kaay ñu waxtaan bi mu ne jëyi loxo bi daa soppeeku na jëyi beneen mu soppeeku kooku moo tax may xam li nekk ci doomu adama xam bi moom a taal xam-xam bi mais suñu cosaan nag daa nañ liggéey xam-xam ñoom mais daawuñu ko dañ ko doon nëbb leen li mais dañ doon liggéey xam-xam a jekk di sol caaye yu rëy di dem tool ñooñu dañ doon liggéey xam-xam di sol caaye di dem tool di war ay fas di sàmm ay nag di fanaan ci àll bi guddi man dama doon tëdd ci guddi gi sàmmi nag ba mu ma tëdd ci jànji ba guddi jot junne na ma jógal moo tax benn waaye damaa woon benn kësis na ma dañ na ma lii jànji la ma ne ko kësis ak jànji du benn xam nga lan mooy kësis junne yi ñoo koy tabax boo xëyee rek fekk mu tooy day màgg nga fekk muy tooy muy màgg nga fekk muy tooy jànji nag day lu ndaw lay day leer nii mais du sori kaw day ratax nag mais du am ñax ñiy bay xam nañ ko boo ko jubee da ngay tëbal sa machine mais bu ci laalee ah kara karas karas dana la sonal

comme li xale yi xawal nii def yaramu neen ah, loolu boo ko defee ñaari boo dajeeg junne sol lu bon dalay lay gàllankoor loolu mooy junne waaye junne bi ñuy wax junne nun suñu maam li tax ñuy wax junne pas muy jël doomu jàmbur pas muy jël nit naan la sa ndey wala sa baay wala sa kii loolu ñu ñàkk fay rek ñoo koy wute alal waaye boo bëggee nguur dañ koy wut ci xorondoom boo bëggee yokk bëgg a jaay di jaral dañ koy wut ci gileem. boo bëggee alal foofu laa bëgg ñu fa uh-huh. da tey dañoo nekk si période élection yi uh-huh. te da nga ne boo bëggee nguur uh-huh. te ñuy xëccoo nguur gi fu mu toll dafa bëri lool ku la seet si woon tey pour wàllu jëflante yow pour wàllu jël nguur gi ndax fu mu toll nii élection yi père candidat yi bëri nañ candidat yi bëri nañ waaye gis nga candidat bi ci ki ci gën a rafet jukko yàlla du juum de candidat yi bëri nañ mais ki ku ci ku ci nekk kuy xeebe koo gis muy xeebe du gaaw du gaaw a jiite kenn buur yàlla koy sàkk de président du caaxaan yàlla moo koy sàkk waaye yàlla doon président bu baax nag waaye buur boo xam ne day bunduxataal aw askan askan itam kooku ak mujjam du baax moo tax dafa amoon benn buur boo xam ne day def réew moom nekk ku fa rek mu rey di jàpp gars yi di di leen sonal benn waaye ñëw ci moom na ko réew mi gàddaay nañ ba jeex te buñ gàddaayee ba jeex du toom koo yilif bàyyil soxot bopp bi da doon yor pouvoir am rek di gaañ nit ñi waaye léegi nag fi ñu toll nii pour buur boo xam ne dangaa bëgg jël nguur gi boo ñëwee ci man def li nga war a def ma wax le li maam yi doon def

damay woo rek si téléphone ma jat ko wala mu am xorom polle wala mu jar wala mu am euh, il faut rek mu am euh, suñu garab yi mu am ci benn amu ko man danaa ko jat faj ko ci sama jat jat yi nga xam ne man moom la yàlla moodu moodu bu nekk bitim réew te am te ak fu mu mënti nekk te gisante woo leen bu la wooyee téléphone su ma woo téléphone ñi mu ci woo ñëpp dama leen faj par téléphone bu dul loo xam ah, liggéey par téléphone waaw damay liggéey par téléphone sama téléphone boobu heure boo ci wootee du ma coupé kenn du ma moytu bokkuma ak ñiy daw di tëju bokkuma ak ñiy nëbb seen i kër sama kër Mbàkke Bawol la nekk min nañ ma Ndakaaru nag mais sama kër Mbàkke la nekk ak samay njaboot. kañ nga fiy ñëw Ndakaaru temps en temps ma ñëw rek def benn semaine 15 jours daal demaat ndax xam nga comme nun waa Touba suñu tëdduwaay day yaatu suñu am naa sama këru bopp samay njaboot fa lañ ne samay duggee dakaar nag Dakar dañ may xëccoo tuuti maay damay daal daw demaat loolu moom mooy waral may dellu Touba pour bëgg fu yaatu te xam nga fii daa xaw a xat waaw. ndaw ñi léegi bëri na ndaw ñu bëri ñoo xam ne cet dañoo da leen gàllankoor danga nga yëngu si wàllu cat waaw dama yëngu ci cat wàllu cat dafa am ñoo xam ne cat bu ñu kukk la ñuy am comme balu fetal ci yàlla musal musal leen ci yéen ñi musal ci ñëpp am ñoo xam ne bu ñu awulaw bu ñu awulaw rek lépp yàqu na mais cat boobu non am naa socc boo xam ne boo ko soccoo <laughs> socc boo ko soccoo day dindi noonu day dindi cat day dindi for rab socc bi boo ko soccoo dafa lay dafa lay day day tax ngay am xaalis ban socc la socc bi niñ koy liggéey rek moo doy waar mais rand rand saa waaja ca laa koy wute waaye nun waa Bangaay Samb nag noo moom bant bi keneen ku dégg émission bi toppandoo ko dootoo ko defar damay liggéey ci gileem damay liggéey ci xorondoom damay liggéey ci rand damay liggéey ci tànn boobu noonu nga xam ne day dindi wàllum cat day dindi wàllum faru rab te ku bëggoon am socc bi tey bu la wooyee uh-huh. nu muy def ba am socc waaw socc bi bu dee sama ñu nekk bitim réew CP lañ may booleel ñoom ment naag ñu bari may nuyu bu baax waa bitim réew ah, ñoom Ibrahima Faye ak ak Ibrahima Sarr nekk Espagne ak ñoom sama xarit yi nga xam ne Cheikhou Camara moom mi ngi euh, fële nga xam ne moom moo di euh, fële la nekk moom Italie ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm waaye gis nga moodu moodu yi dañu am loo xam ne bu leen dalee tubaab yi duñ ko mën a dindi day am loo xam ne du yëfi tubaab fii ci Sénégal man tubaab rek laa euh, docteur yi rek laa mais day am loo xam ne boo déggee mën a du yëfi tubaab day loo xam ne docteur du yëfi daa am faji wolof daa am ak faji docteur boo demee ci lii docteur man nag du ci jëm dara mooy jigéen ji tollu diggante dama ca docteur ya du ma liggéey tul duma ko liggéey du ma liggéey sel du ma ko liggéey mais boo bëggee bayre rek wala nga bëgg di yokk wàllum bayre da nañ gars yi bëri dañuy bëgg bayre surtout ma waa euh, nguur gi nii mm. bëri nañ ñu bëgg bayre mooy ñu jël ñu yootu nguur gi bëri nañ fu ñu toll dégg diw diw diw diw ku bëggoon bayre uh-huh. nu muy def ba am ko ah, man bayre bi damaa sonal ba gis nga ni ma ñaawee tey li may ñaaw ñaaw nii yëpp jigéen ñi sax dañu maa bëgg ma man bayre bi daf may daf may sonal ba nga xam ne maanaam bayre yomb na bayre soo di ñëwee bëgg bayre li li ma dul ñemee def rek ma jox la ko ci neen nga daal di jóg di ci fo waaye pour nit ñi topp la bayre am na am na secret yoo xam ne boo ko defee ci garab bi nit ñi dañuy ñëw toog danaa wax secret secret bayre dañ koy liggéey ci tan dañ koy liggéey ci lu bari loolu ci li ñuy liggéey bayre danaa ko liggéey ci xorondoom danaa ko liggéey ci barawel ngel danaa ko liggéey ci gileem bayre de li ma ciy liggéey musiba la. waaw ku la seet si wàllu bayre sa aajo sa faju boo ñëwee sa aajo faju man damay dindi jaaxle. dindi jaxale bi rek lima gëna li tax ma gën ci sawar moy dama dégg même si yeen site internet yi da ngeen dem ba sax da ngeen jaxale ci ñenn ñi euh, parce que sëriñ euh, ñi liggéey xam-xam ak ñi koy jëm duñu benn ñi liggéey xam-xam amna fi benn cuuraay boo xam ne bu ma rek ciow li bari. benn cuuraay boo xam ne. bu ma ko li bari. Manam <laughs> bu dé da nga am forrob nak forrob limi yakal nit dafa bari am ñoo xam day tek seen wërsëg am ñoo xam day di merlo. am loo ñoo xam dañu toog ba mu yàgg dootuñu mën a nekk ak kenn am ñoo xam da leen di tëj bu ñu wutee duñu am am ñoo xam wut liggéey ba am ko mu lu leen bu ñuy bu ñuy dàqee bu leen dàqaloo ba pare nag duñu am feneen ba amee fa rob bu baax nag buñ la xañee dara day lay wut jox lu ëpp loola. damay gis ni père. Uh-huh. gone yi lay ku jug day woo yëngu si wàllu football. Uh-huh. te yow gis naa da ngay ñaanal ay joueurs. Uh-huh. joueurs yu bëri ñu lay ñaanal uh-huh. tey ku bëggoon tey uh-huh. nekk joueur bëgg nga ñaanal ko tey uh-huh. mu signé contrat wala mu wala bii di gën a bëri quoi ndax yow gis naa ne équipe yi bëri rek leen di ñaanal waaw waaw waaw bëri naa yi footballeur waaye boo gisee nag ma gën a kontaan ci ñoom jukko ju rafet ji ku mel ni Sadio Mané jukko bu rafet bi mu yor daa bëgg seen cosaan bëgg waa dëkkam ba pare dégg naa ñu bari ñu ngi commentaire sax ci li def nii mais xam nga moom gannaaw dafa dem takk nit ku am diine ko kon daa jël la gën daa jël la gën ba pare xam boppam nag te gis nga xam sa bopp ak a baax ci doomu aadama xam sa bopp dafa xam doom dafa baax ci doomu aadama léegi nag su ma gisee nag koo xam day yëngu ci wàllu football dama lay jox loo xam ne da ngay siiw rek dama koy jël ci yeelu gileem. yow wàllu si wa yeelu gileem nga koy defaree. yeelu gileem laa koy defaree. wala baggu gileem bay bagg bay def nii ndodd ma. ndodd gileem gileem bu weex tal ci laa jëlee ci laa jëlee kii ba ci laa koy jëlee bagg boobu. su ma ci jëlee su ma ci jëlee su ma ci jëlee ci ndodd mi bàgg ba mooy lii waaye bàgg bi bàgg bi ci lay liggéey ci li mais lii na ma koy wute nañ koy jate lañ koy jëndee boo ko fekkee da ngay tiit. lii nga tee ni maa la wax lii lii bala ma koy jël dama koy nuyu jat ko door koo jël kii benn karaw bi jar na million benn bi. benn karaw bi rek benn karaw bi jar na lu bari parce que kii wuti am la tudd. wuti am wuti am. bii man lan lan lay def. kii day dindi seytaane lii li muy dindi garaaw na day indi wërsëg day tax nit ñi bëgg la day dindi ne ku bañ am noonu moom da koy puus mu jaaxaan te it dana la aar ci euh, junne du la jege boo ko yoree boo yore man bi ma ci yor ba def ci li ma ci war a def junne du la yàqal parce que junne sama xarit la moo tax junne moo gën nit junne moo gën a gore nit boo seen nag ñi ne junne nit a ko gën yonent bee tax waaye ñoom ñoo nopp wëlëree parce que buñ la amee soo màggatee boo ñàkkee ñu ànd ak yow waaye gars yi de am na si ñoo xam ne boo àndee ak ba yoratoo dara ñu la gannaaw mais junne moom loo gën a ñàkk mu gën a xaritoog yow moo tax junne moo gën a puulere nit léegi nag ci wàllu bayre boobu ci laa lay ñëwaatal yemuma ci yemuma ci footballeur bi kese de bu dee takk der ab procureur bu am faru rab bu ñëwee sax ma dindi ko te procureur li muy bëri doole lépp mënul faru rab dara bu jëlee avion mu yëg fekk ko mu ne président mënul faru rab dara xanaa mu am secret bi ñu ci am rek bu dee sëriñ beet di kilifa diine lu mu bëri maqaama maqaama am na faru rab ko rob boobu dañ koy neexal ba dutu yàq motax nga leg leg serigne bo xane du bari khas du siw far rob da rawanam mo mo mo mo soxor te jappale wuko waye bu la sa rawan jappale ku jëm ci yow lu bon du soti ku jëm ci yow da ngay si tass ndank rek day tass rek ba gisatoo tok père ku ne xamne lambo yi na yi gën télé yow nak tay man ma forcer pour gën génn uh-huh. na mbëri bëri dañ lay pour nga yëngu ci walu sa diggante ak mbër yeeg ji. waaw làmb ji nag am naa ci mbégte bu baax parce que làmb ji ñëpp samay xarit lañ surtout Balla Gaye sama xarit la waaye Ama Balde eh, ak Tafatine xam nga Tafatine moom bawol bawol la te man bawol bawol la te dañuy wax nag nit mbokk ma njëkk mais Tafatine eh, ak kii eh, Tafatine ak kii may wax léegi nii Balla Gaye ak Ama Balde Ama Balde jamono yi ñu toll nii temb temb temb normalement moom moo war a moom làmb ji mook Tafatine ndax ñooy ay xale yu war a ci génn waaye Tafatine am na gàllaaj Ama Baldé am na gàllaaj mais Ama Baldé bu àndoon man dootu daanu sëriñ si mu àndal am nañ xam-xam de mais man su àndoon ak man ñooñe na leen téye boole ca mais na na téye ñooñe teñ boole ma ca mais kon dootu dootu gaaw a daanu. bu seet si woon bu seet si ñam àndal am nañ xam mais Ama Baldé am na lu manqué le su ma seet woon dootu daanu dootu gaaw a daanu. da nga xool xoolaat xam ne kii am na lu manqué. damaa xool xam ne am na lu manqué le gis nga sëriñ bi lay ñaanal mën naa bëri xam-xam mais mën na am benn affaire bu ndaw bo xam ne yi xam nga dañuy sottante te bo diglo lamb yi passé ni nga xam ne sot amna ci sottante am ci. digënde combat boyña modlo Modou de sot da ci am. combat Modou Lo Boy Niang weesu na am xuloo weesu na am jàppante waaye xam nga ñom seen bop euh bu la sëriñ ñaanalee da ngay nag da ngay am da ngay dégg ndigal di ci bolé nak bu la sëriñ ñaanalee ba paré da ngay dégg ndigal di ci bolé gis nga boyña bu téyé bu téyé bu téyé béré ni wara béré dana xam dana xam gàllaaj li muy jëriñ waaye nag euh, man li ma gën a gëm li ma gëm li ma gën a gëm te xam ne moom laa gën a gëm mooy fi mu toll nii tembe mbëri làmb yëpp samay xarit lañ Balla Gaye def war a dellusiwaat ci euh, euh, bokk ci làmb ji ñoom ñëpp dañoo war a dellusiwaat bokk ci làmb ji mais Balla Gaye xele bu yaru la mooy ku bëgg lu baax ku ne war na jël saasam mais nag amaa Baldé yéene naa ko mooy mu dem ba nekk champion nekk kii ci làmb ji ñoom Tapha Tine ñooñu ñoom ñëpp rek ama seen ñoom ñëpp mais amul moom mos na mosati kon nag gaa yeneen ci des ñu mosutoon dañuy bëgg ñoom ñu mos. amul Thiès Pierre. ah Sa Thiès mom moom bu mosee mu baax ndax xam nga kon boo nee Balla Gaye rek nee nga Sa Thiès te Sa euh, euh, Sa Thiès mi ngi ci yoon ñooñu ñëpp gis nga mbëri ku ci ragal liggéey da ngeen may woo man toj liggéey ak jox nit bayre dafa am lu ma ci yàlla dénk su ma wutee wut ba dem ci dugg ca làmb ja non bu ma fa rek mu jeex xam nga wàllu seyir bi damaa amul kattan dem ca buuxante ba looloo mu xaw a jaaxal. <laughs> waaye mbër bu ma seet si. allahu akbar wala nga xam ne yàlla li mayoon nga xam ne jeexul. di wax ku soxla peer numéro bi mi ngi daw foofu noonu. numéro bi day daw suuf écran bi day daw si baar bi képp ku soxla peer boo ko woowee si numéro boobu dina la wax fu nga koy fekk mu ngi dëkk Touba Mbacké di ñaan ko tu yàlla bu wóor a wóor di ñaankat bu nga xamne mom la réew mi di laccé di ñaankat bu nga xamne dafa nekkon suru laqatu mais ñun ñoko feñal ñun Thioker TV ko lañuy wax rek dañ koy bay waata bi mu xusa tuti ñu doog tagoto père wa wa wa kay bu ko defee comme ni mako ni ko waxé rek légui euh, man naa la ci dugalal numéro bi sax ngeen dugal ko bolé ci wa 77 la parce que man duma coupé kenn 257 32 61 bobu bu ngeen ma ci wo da ngeen may jot mais 77 257 32 61 bu ngeen ma ci woo di ngeen may jot. whatsapp bi waaw boobu whatsapp la. ak 76 371 45 13 da nga may jot 76 371 45 13 da nga ma ciy jot. te man damay koo xam ne téléphone yi mën nañ bari si man nag mais buñ ma oo te jotuñu ma. dama ñaari téléphone nga yor. ma la wax li yi doy waar Modou Modou yi ñoma yone iPhone yi. <laughs> ñaari téléphone. non non la ndeysaan gis nga Modou Modou yi samay xarit lañ. léegi bu yàlla dogalee nag ñu woo ma te jotuñu ma damay jëlaat appel yooyu bu ma demee ba guddi ñoo ñëpp dama leen di woo ma di leen ba jot leen ne leen kat da ngeen maa woon jotu leen ma mais man du ma coupé nit waaye ndax nit ñi soxla la ba pare nga liggéey bi mën na xat nag mais da ngay jox nit ñi àq ku ma woo jotoo ma su ma xoolee appel perdu sama pare dama lay woowaat noonu laay liggéeyee. waaw waaw xam naa li ma ciy dolli. waaw xan waaw lii li mu ciy dolli rek mooy gis nga suñ borom dafa yéeme lépp nag da koo def ci mala yi lii ci mala yi lii ci garab gi ñu toog garab lépp mu ngi ci garab yi boo xamee boo xamul lii mi ngi ci garab yi lii mi ngi ci mala yi gis nga tan lu doy waar moo ne ci moom gis nga naat lu doy waar moo ne ci moom gis nga euh, am na benn picc bu ñuy wax euh, si picc boobu moo doy waar tey toq <laughs> gis nga toq bu bëggee nen bala muy nen moog jabar ji dañuy ànd wu ci kër buñ demee ba am kër nag bu jabar ji waree nen nag jabar ji dugg nen jëkkër ji tëj ko <laughs> loolu li muy tekki mooy dañoo war a góor góor góorgóorlu liggéey tey tabax kër wut eh, yàlla dañuy misaal ci mala yi beneen mala bi ci des ñi koy wax jalaal day misaal nit ku bon gileem day misaal nit ku séeneen xaj day misaal nit ku bon mala yi suñ borom di ci won nit ñi pour ñu gon a góor góorlu mbaam day wane nit ku ñàkk wëllëre boo ko xontee ba mu bu la wanee gannaaw day wangeetu mbaam boo ko xon wala mu yëq la nag day misaal nit ku soxor moo tax ñaare doo ko yore ba màgg boo sàgganee mu jam la si xar moo gën a doy waar day misaal boo néewee doole dang ko war a wuti moo tax bu reggee day daw ba fële daw wut si la ñëw bu seg yoot taxaw bu la miinee waaye bu la miinut dalay falaxe kon mala yi dañuy wax mala yi dañuy wax ak nun nit ñee du dégg nit ñi nag bu ñu ba xamatuñ fi ñuy teg suñ tànk di jiñ euh, di jiñante koy liggéey ak jiñante koy cat fekk ñoom ñoo sikk ndax dañoo war ne moytu doxu timis itam dañ ko war di bàyyi kawar gi nag de am li ci nekk ci muslaay dama koy génne pour aar sama bopp aar leen ndax xam ngeen euh, yaa ma gën a xam waaw kawar gi li ci nekk moom des ko wax lépp ci bii fii waaye ku ñëw ba suñu daara ba gis lu ñu yor ci biir buñ ko taalee nga xam ne weddi gis bokk ci te tukkikat yi nga xam ne ñu ngi may gis bitim réew di ma sant naay dugal vidéo yi nag ñoom xam nañ xam naa sama xaritu takk der yi ca Njaareem ak Touba ga ma dëkk nag nuyu naa leen ndax ñoom samay xarit lañ man la ñuy wooyee pas junne moo tax ma ne allahuma fi takk bi ci bii ci junne allahuma junne takk bi ci junne. kon pas junne joxal numéro téléphone yi. nga tàggatoo waa kay waaw numéro téléphone yi 77 ngay def 257 32 61 wala 76 371 45 13 76 371 45 13. waaw kay 76 371 45 13 ci nga may jotee numéro yooyu boo ci ootee da may jot waaw ñaari numéro yëpp whatsapp la. boo ci wootee numéro dina jot Baye boo ci wootee da nga ma jot da nga ma jot whatsapp da nga ma jot direct waaw. ku nekk bitim réew bu la woowee. ku nekk bitim réew bu la neexee mën nga ma woo ci whatsapp bi bu la neexee mën nga ma woo appel direct da may jot. waaw 24 heures sur 24. 24 heures sur 24 su ma demee daal ba zéro heure ci Sénégal danaa tëdd dallu mais damay nelaw léeg-léeg ba guddi gi xaaj ma jóg di xool appel perdi waat di ko jël tuuti ma damay nelaw di jóg rek noonu laay liggéeyee liggéey yu mag laa koy def léeg-léeg euh, su ma añee ay 4 heures yooyu ma dem tëju nag tëdd ba ay 6 ma génnaat. noonu lay ku dëkk Dakar su la soxlawee. waaw bu dee ku dëkk Dakar su ma soxlaa na ma woo si numéro yi rek saa yi maa ngi Sacré-Cœur saa yi maa ngi Parcelles yenn saa yi maa ngi Guédiawaye yenn saa yi nag maa ngi sama kër Mbacké moo tax Dakar moom su ma fi nekkee dama ñëw di fi liggéey si rek su ma paree damay delluwaat. semaine nga fiy def demaat Dakar léeg-léeg ma dikk am fi semaine léeg-léeg ma am cinq jours sax demaat. waaw parce que léeg su ma ñëwee fii am na kilifa yoo dañ may damay demaat waaw loolu moo tax. soxla na profito waaw ku ma soxla nag man na profito mu ñëw fii maa ngi kër sëñ Fallou moom boo ñëwee mën nga ma fekk fii maa ngi fii nga xam ne moom mooy euh, Padois waaw dee euh, nag nebi sukeer ci kër sëñ bi maa ngi fi xam naa ne fi ne demaguma Touba mais numéro téléphone yaa ngi noonu waaw maa ngi fi. jërëjëf góor gi lañ fi amoon borom Mbacke borom Touba lu ko wër kon lu may wax rek ku ko soxla mën nga ko woo si numéro yooyu noonu ku ko soxla boo ko woowee si numéro yooyu di nga ko jot Thioker TV la woon am la woon ak Aziz